juma omarienne bi nga xamante ni le président Bassirou Diomaye fay fii la nar euh, jullee tey dafa mel ni nag moom la président mi ngi noonu di agsi ndax motaar yi ñi ngi euh, jub si fi nga xamante ni moo di euh, juma ji comme ni ngeen koy déggee noonu ñu yaakaar ni le président Bassirou Diomaye fay mooy daal ci aksi ndax motard yi rek euh, comme ni ngeen koy xamee moom moo koy daal di annoncé kon moom daal dafa mel ni agsi na le président Bassirou Diomaye fay lépp ngeen mën ko am en direct ci son Limites TV d'un moment à l'autre moom la président Bassirou Diomaye fay dina daal di agsi vu que motard yi agsi na comme ni ngeen koy déggee Euh, motaar yi nga xam ni ñoom ñoo koy daal ci mhm. maman comme ni nga ko ni nga ko waxee en fait boo gisee placement bi ak euh, policiers yi ni ñu organisé wu ni ñu taxawee euh, gendarme yi xam ngeen ne ñoom ñooy gérer sécurité ki nga xamante ne moom mooy président de la république gis ngeen motaar yi ñëw nañ ni ñu taxawee ni taxawaay bi boo ko gisee nga xam ni mi ngi ci yoon bi di ñëw ndax bu ñu xoolee fi heure bi toll ñu ngi ci 13 cinquante 51 donc bu dee dañu war a julli 14 heures 15 minutes donc mën nañ xalaat ni président Bassirou Bassirou Diomaye Faye mi ngi ci yoon bi di ñëw en tout cas lu si mënti jàpp rek euh, gis nañ ndax dafa nekk ci logique bi mu nekkoon mooy dem seeti kilifa kër kilifa diine yi jógee fi nga xamante ne moom mooy Touba seeti Serigne Mountakha Mbacké Bassirou dem seeti Serigne Mbaye Sy euh, euh, Mansour mi ngi noonu président Bassirou Diomaye Faye mi ngi noonu di ñëw ni ngi noonu ndax dafay ànd ak Ousmane Sonko loolu di ngeen ko xam léegi léegi waaye jàpp leen ni Bassirou euh, Diomaye Faye di président cinquième président njiitu réew mi oto yaa ngi noonu di ñëw gendarme yi wax naa leen ni saa yoo gisee maam gendarme yi di jege si di ñëw di placé wu rek parce que ñoom ñoo yor sécurité bi yaa ngi gis ñoom ñoo nekk ñii si biir oto bi gis nga pour ñëw euh, police moo fi jiitu woon pour balayer. Euh, terrain bi xool gis nga waa waa ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor euh, présidence ñoom ñoo ñëw noonu sécurité baa ngi noonu taxaw à tout moment donc mën nañu xaar ni Bassirou Diakhaay Diomaar Faye agsi na euh, damay ragal nag mu nekk oto bëla may seen dugg na parce que moom très souvent duy sol du yor oto oto oto yu yamamaay lay kii moom dafay faral di modeste yi daf ngay gis ci ci ci ci ci doxalinam moo tax à chaque fois keroog ba muy dem Touba gis nga nekk oto bu yam la yor rek parce que voilà dafay bëgg lu discret mais fii discrétion du fi mën a am parce que ñëpp xam nañ ni euh, président euh, Bassirou Diakhar euh, Diomaye Faye dafay egg si mu ngi ci yoon bi dugg na am duggul di ngeen ko xam léegi léegi en tout cas pour le moment ñu ngi jàkkaarloo ak moom jàkkaarloo ak escorte bi sécurité bi dugg nañ ci biir jumaa bi. effectivement Ousin comme ni nga ko daal di waxee mënees nañoo jàpp ni euh, le président ba Bassirou Diomaye fay ci dynamique bi nga xam ni moom la nekkoon dem rek daal di seeti kilifa diine yi tey ji moom lay wëyal fas yéene euh, amal fi julli juma euh, fii nii ci mosquée Omarienne bi moom nag comme ni ngeen koy gisee. dafa mel ni cortège présidentiel bi ñoo nekk noonu ndax euh, gis nañ motards yi naka noonu ñi nga xamante ni ñoo di garde présidentielle bi itam ñuy xaarandi rek le président Bassirou Diomaye Faye am yaakaar ni euh, porte bi rek la nar a euh, duggee le président Bassirou Diomaye Faye comme ni nga ko waxee Ousin itam moom nag gis nañ modestie waaye itam discipline bu baax a baax ci moom la président ba Bassirou Diomaye fay ni nga xamante ni noonu lay taxawee ak kilifa diine yi bu ñu jëlee exemple bu ndaw rek ci julli korité bi nga xamante ni moom lañ génn euh, dafa daal di rek euh, euh, dafa daal di rek dem di feggoo ak ki nga xamante ni moo di imam bi loolee nag nekk loo xamante ni daal dina marqué sénégalais yi bu baax a baax. effectivement. Bassirou Diakhar Diomaye Faye egsi na mi ngi ci porte bu mag bi xam naa nag du ñàkk suñu caméraman dinañ la ko woon léegi mooy oto bu noir bi bi ñu bind PR président de la république ci plaque bi. donc mi ngi noonu ci porte bi waaye dañuy jéem a dox ndànk rek jéem a jege mais. voilà mi ngi noonu président dugg na si biir mi ngi si biir jumaa ji euh, dañuy jéem a euh, dox rek euh, pour pourquoi pas jël tuuti réaction mais également wan leen nii ñu ngi en direct fi nga xamante ni moom mooy jumaa yi omarienne bi nga xamante ni Thierno Madani Tall bi nga xamante ni moom mooy serviteur de la famille omarienne moom la ñu njort moom moo koy dalal ndax dafa am ay déclaration en tout cas président Bassirou Ndiakhar Diomaye Faye dugg na ci biir fi nga xamante ni moom mooy jàkka ji jumaa ji ngeen ngeen baal ñu gis ngeen gis ngeen ñi nga xamante ñooy fidèles yi ñoom ñëpp egsi nañ ànd ak euh, boo xam daanama voilà comme ni ngeen ko ni ngeen ko gisee mbokk internet yu sans limite sécurité baa ngi noonu di xàll yoon yi pour nit yi. voilà président Bassirou Diokhar Diomaye Faye dugg na mi ngi ci biir porte bi ngeen di eh, jàkkaar lool fii la fii la duggee donc c'est bon maam Euh, maam mu mel ne président dugg na ndax euh, comme ni ma ko waxee bu ñu gisee plaque bi gis PR bi rek dañuy xam ni euh, président Diomaye Faye moom moo dugg ci biir porte bi mu jaaree nag gis nga ci ginnaaw la jaaree gis ngeen sécurité bi ñu ngi taxaw gis ngeen gendarmerie yi également ñu ngi taxaw ak sécurité bi nga xamante ni ñoom ñoo yor wàllu président de la république Diomaye Faye egsi nañ donc mën nañ jàpp ni moom dafay àndandoo ko julleendoo jumaa ji ki nga xamante ni mooy Thierno Madani Tall bi nga xamante ni moom moo yor kaddu kaddu xalifa bi ndax bu paree dafay def déclaration dégg nañ ci xibaar ne également daf koy recevoir dañu seq waxtaan ndax Diomaye dafay profité aussi occasion bi euh, pour waxtaan ak moom wala dafay jullee chaque àjjuma en tout cas luñ yooyu yëpp ay question la yoo xamante ni mais luñ si mën a jàpp maam mooy gis nañu fidèles yi gën nañoo yokk fidèles yi gën nañoo bari bi ñu yëgee ni Bassirou Diomaye fay dafay ñëw jullee fi juma effectivement Ousin comme ni mu ko waxee gis nañ ni le président Bassirou Diomaye Faye euh, jamono ji mi ngi ci biir euh, jumaa ji fas yéene fi amal li nga xamante ni moo di euh, julli aljumaam comme ni nga ko waxee également Thierno Madani Tall tey jii moo ko fas yéene dalal fii si jumaa ji nga xamante ni moo nekk jumaawu famille Omarienne bi fas yéene nañ sekk waxtaan itam loolee nag ñu mën a jàpp ni le président ba Bassirou Diomaye fay Euh, mën nañ jàpp ni rek peut-être benn pratique boo xamante ni da koy daal di initier en tant que président lay daal di doon di fi amalee euh, aljuma bu jot rek li nga xamante ni moo di euh, julli jumaawam waaye itam mënees nañoo jàpp ni visite yi nga xamante ni doon na ko effectuer ci këru diine yi loolu lay daal di wëyal ba tey ji mu jagleel ko la famille yan waaye lu ci mën ci am rek ci kanam tuuti ñu am yaakaar ni moom la président Bassirou Diomaye Faye dina euh, jàkkaarloog taskatu xibaar yi daal di yëkkati ay kàddu jëmale ko ci dalal bi nga xam ni Thierno Madani Tall moo ko koy dalal tey fii nii ci mosquée Omarienne waaye itam jëm ci euh, ni nga xamante ni euh, noonu la bëgg a taxawee ak kilifa diine yi ndax gis nañ ni bi mu toogee ba tey kilifa diine yi wala sa këru diine yi la ñuy daal di wax ñoom daf leen. daf leen bàyyi xel bu baax a baax ndax gis nañ ne ay visitam ci ñoom la koy njëkkee gis nañ bi mu demee Touba dem Tiwaawan ba tey ji mu daal di ñëw fi nga xamante ni moo di ci mosquée euh, famille omarienne bi donc nekk na loo xamante ni dañ koy rafetlu waaye di rafetlu itam euh, discipline bi nga xam ni moom la président Bassirou Diomaye Faye àndal mais itam euh, modestie wam tout à fait mais aussi modestie bi nga xamante ni moom la àndal ndax yaa ngi gis ne fële lañ ko doon xaar ci porte bi nga xamante ni garde yi ñu ngi taxaw foofu ba ñu yaakaar ni la président Bassirou Diomaye Faye foofu lay jaaree mais dafa ñëw jaaree tout à fait derrière exactement jaare ci ci parking bi par la grande porte donc nekk na loo xamante ni quand même dañ koy daal di rafetlu muy ay signes yoo xamante ni daal day dal xel ci le président Bassirou Diomaye fay moom mi nga xamante ni euh, bi mu toogee ak léegi mënees nañoo ne ci diirub weer la daal di euh, toll waaye. li ñu gisagum ci noonee nga xamante ne lay doxalee surtout jagleel ko këru diine yi dal na xel bu baax a baax ndax boo tuddee Sénégal rek këru diine yi dañ fi am wàll bu baax a baax